Mouhamed Ndiaye merci kon su ko defee ñu woo suñu yaay Alimatu Ñaŋ ko defee moom tamit mu wax ci kàddu parents yi ci wàllu jigéen ñi ñu wax ne ne balaa ñu lay jox kàddu dafa am ñooñu boole loon muy suñuy collègue yoo xam ne ñoo bokkoon liggéey bi ku ci mel ni soxna bu faal bi ñuy ñëw colonie boobu amagul entrant sixième te incha allah déwén ci war nekk ingénieur ba léegi mu ngi ñëw kuréel yal na ko yàlla jàppale yal na yàlla yeggale ay njàngam mu nekk koo xam ñu ne il faut que ñu gërëm ko ci sa kanam xale bu yàlla xale bu dégg ndigal xale bu ñu jàppale coono ba daan am ci kuréel ren amuñu ko ndax moom fu mu waroon taxaw rek bu taxaw na fa yal na allahu akbar. wa rahmatullah. maa ngi nuyu euh, mbooloom yëpp di ko tàmbalee ci imam Camara euh, di nuyu waa Sandiara yëpp di leen gërëm ndax euh, xale yi bi ñuy ñëw di dal si Sandiara man ak man ak ñoom imam ñoo àndoon ñoo àndoon ñëw ñëw teg xale yi seen loxo mais ñëwuma souvent parce que bëgguma tam di fi bare tànk mais xam dara umpuma fii ci colonie bi euh, kon nag ñu ngi leen di gërëm ni ngeen téye xale yi di leen sant euh, li ngeen def euh, l'islam ngeen ko defal xale yi ngeen ko defal Sénégal ngeen ko defal maa ngi profité tam di wax ci turu yaay Fanta Fanta yaayam nee na mu ngi gërëm imam jànqe bu baax ndax colonie buñ ko yóbbu duñ ko nangoo jël mais ñu ngi ko jël fii ñu accepté ko Euh, te loolu lu ñu war la ñun ay éducateur lañ que xale yépp lañu war a jël euh, e-, emale leen yar leen te fàtte tam euh, xale bu neex a yore la wax dëgg yàlla encadrement bi ñépp la lay lay déggool di wax ak ñoom di di épanouir te loolu lañ ci bëgg yàlla na ko yàlla def mu tegu ci yoon di siraatal mistaxin yàlla may ko mu def mu barkeel di sant tam njabootam eh, waajuram yi nit ñu eh, óoloo ba rek ko si suñu loxo imaam jërëjëf jërëjëf jërëjëf waa daara Aïcha itam ñoom ñëpp ñu ngi fii ñu lay nuyu la sant di la gërëm yal na yàlla yàggal si taxawaay sa liggéey bi ngay def ci lislaam yàlla na sa yàlla fay salaamaaleykum wa rahmatulah waaw imaam kii kenn la koo xam ne waxuma colonie bi waaye daxaara imaam Buxaari taxawayam yakarna imam jànke rafetlu nako muy jigen jo ku déterminé wu ci lepp ci l'islam eh, nek kenn ci ko xam ne ci fondateur yi nga xam ne ci colonie bi mom ya alimatu ñang ñu ngi rafetlu taxawayam diko ñaanal yalla subhanahu wa taala yalla yalla barkel ay domam barkel njabot gi xale alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa tabarakallah dañuy jox eh, imam sakay moom tamit incha allah mu daal di indi ay kàddu. tey bii ci lislaam li ñu njëkk woon ci xale yi daanaka waar nañu mag ñi wala yedd nañ sax lenn ci mag ñi. jullit yëpp war nañ ci roy waajur yëpp war nañ ci roy jàngalekat yëpp war nañ ci roy Sénégal nag war nañu tiit te delluwaat ci yàlla ndax nangami mi a ngi ñu di ñu yónnee ay leetar yoo xam ne ñi ko jàng bariwul ñi ko comprendre bariwul ñi ko jariñoo bariwul leetar yooyu sida ci la bokk waaye jàngatuñ ko te li koy sabab mooy yàlla bokk ci ñi nga xam ne ñooy faj loolu walla bëgg a faj loolu ñu ne dañ lay wutal lu lay protéger nga mën a mooy yàlla te dara du la ci fekk doo bàyyi mooy yàlla nga mucc mbënn mii ñu doon jàmbat leetar la waaye kenn jàng ko kenn jëriñoowu ko moo tax ren bi nawet bi tardé ci seen gis-gis ku ne jooy nga ku ne jàmbat nga ku ne fàtte nga sa ka ngay gënoon yaakaar tàllal yàlla loxo te loolu yàlla bëgg wa huwa alladi yunazzilu lxaysa min baadi ma qanatu wa yansuru rahmata wa huwa alwaliyul hamid waaye beneen leetar ñëw na xam nga Ebola ngeen ko tudde xaw ma mu mujj léegi te na lool te ci suba rek ci information yi sunu étudiants yooyu jàng ci siin ak yeneen i am nañu problème nee nañ feebar bi dafa am Sénégal dootuñu recevoir ku bàyyi ko Sénégal kon lettre yëpp duñ ko jàng ñu jëriñoo ko luñ ko jàng jëriñoo ko mooy ñu dellu ci yàlla zaharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydi nas ci suratu Rum li yuziqahum ba'da lasi amilu la'allahum yarji'un yàqute feeñ na ci géej géej ci jéeri jéeg ñépp waaye li ko sabab mooy nit loxo nit ci nekk lu tax yàlla def loolu mu ne dafa bëgg buñ ko jàngatee ñu ko dellu ci yàlla li ñu siqoon baax di la si aminu laallahum yarji'un am na benn kilifa bu mag ci senegal mu ne nag li gën a garaaw bu yàlla defee loolu pour waar leen pour ñu dellu ci yàlla au lieu dellu ci yàlla dañuy jàmbat te duñ sant yàlla senegal nag fi mu toll léegi dafa mel ni saytaane jekku nañu fo bari na mooy yàlla bari na caaxaan bari na ñàkk maandu bari na te li ñuy jàmbat programme mu yi ne ci Afrique wala ci àdduna si yépp seen programme xeex ñàkk ci la bokk te l'islam boobu l'islam boobu moom ba muy xeex ñàkk xeexoon na ko ba rey ko ba am victoire ba ñàkk jóge fi ñu jàng histoire l'islam xam nañ ne demoon nañ ba l'islam bu génnee asaka du gis ko ko jël amoon na jamono ñu génne asaka war monde islamique yëpp kenn jëlu ko soxlawuñ ko ñaara ak waraloon maandu ak jom la waraloon ñu génne asaka gisuñu ko ko soxla ñaar rek la woon jom ak maandu maandu mooy ku ne ñu jox ko àqam jom mooy ku ne jóoci loxoom yooyu yëpp nun bàyyi nañ ko liñ gis léegi daal nun mag mu nangoo tuta jaamu yàlla xale bu nangoo tuta jàng jigéen ju nangoo tuta sëy ñépp nekk ci lu leen neex buñ xëyee di tooñ seen borom buñ fanaanee di fanaana mooy seen borom buñ xëyee di ñaan seen borom yàlla du leen may dara mbir mi daal moom benn ñu dellu ci yàlla wala ñun ñëpp ñu toskare leneen amul wasalaamualeykum jërëjëf imam Sankhé kon ñu jox ki nga xamne moy mooy alxaaji Taala Siise mu daal wax mom tamit ci kàddu ñi nga xamne ñom ñoy ñi ànd ak suñu imam billahi samihi alxalim min alseytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa maxfiratuhu Alamini muhibbukum wa akei kou oboi al murtada si se al tana biu asalamu wa mauli dan wa maskana. Asalamu barakatuh. kou wa khulay barakatu. <hesitation> Doni khawak khel, tis barak nenyi binou, kenereke gi drenye pujuli. Binjokon sanggeng wa khel do nenyi pu tok pu tigokam. Kebi wa khel feyel nan ma bëgg wax ji gàtt ba noppi am njëriñ tey dëgg ma bëgg wax ji gàtt am njëriñ tey dëgg alxaaji daawuda kamara gannaaw yàlla alxaaji daawuda kamara gannaaw yàlla moo sabab sunu ñëw fii ma bëgg ci joxe benn baat bu gàtt képp ku bëgg am ku gën daawuda kamara danga koy seet ci ñi dee waaye ñuy dund moom mënees da ko cee am Hmm? ku bëgg am ku gën Daouda Camara da ngay seet ña dee waaye ñuy dund nii mënatu ci am ku gën Daouda Camara te xam naa ci ñu bari xam naa ci lu bari fekk naa ci lu bari adduna bii nag dan koo song te mu daaneel lu ba noppi duniyaa mu dabbaratun laa yudriku taalibuha wal axiratu maqbulatun laa yafootu aaribuha adduna dafa ne sa gannaaw loolu gën a wuti gën koo sori alaxane sa kanam lu nga daw gën ko jige aduna bi rek bu xam-xam de ben rek alxuraan gën su man-man de ben man ak say bok gën su am-am de ben amu dund gën su bëgg-bëgg de genn bëgg yalla gën su bañ de genn bañ wi gën su ragal de genn ragal say bakara gën wa hmm? gis nga koy wax legi doom boo amee boo amee doom soo ko yarul su guddee fan jamono yar ko su gàttee fan bàmmeel yar ko soo amee doom su yaroo ko jamono yar ko su gàttee fan bàmmeel yar ko su jamono yar dana àgg foo xam ne boo doon yar doo fa àgg su bàmmeel di yar doo yëg yaroo na gën hmm? yaroo na gën soo ko yërul man su gude fan jamono yaral lako su gàttee fan bamel yar ko su jamono yare dana ag fóorlu won ag ba ngay yar su bamel di yar do yek mu dess nak koel bi yak jamono te kenn ni moko wax mu bëgg ci laal tuti ndono yi la dina jëb liko ko yàq ñu ko te ko te ñu kenen don ko waaw so fi mané jang mandu di dund dëgg te juddoo ci yenn kër yi ñun di yàq diine dono ñeent la ñi fexe woon ba doon ko te doonluwuñu ko ponkal yaa ngi noonu ay Alaaji Maalik ak ñi ñu sànq doon lim ñoom ñëpp ñu bëri xamuñu seen bàyyi kon fexe woon nañ ba doon ko te doonluwuñu ko ñu wàcc mooy ñu ko doon ba nopp don ko meloon ne Alaaji Abdou Aziz doon ko ba nopp doon ko ñi nga xam seen yoon nekku ci mooy ñu ko doonluwul doonuñu ko yàq-yàq mooy ñu ko doon moom te doonuñu ko te nu keneen doon ko te ñoo ñoo ne gàññ nag mel ni suuf waaye bu ñu tee kenn doon ko de bu ñu dee kenn doon ko ku bëgg doon ku ku mën a doon ko yàlla na woon di wëg koy doon amul ki gën ci àdduna muy Muhammad ak ki fi yées ma Abu Jahl ñoo bokk askan kon askan bi ñëpp baax mbaa ñëpp bon amut inna labraara la fi naimin wa innal fujaara la fii jaimin maa ngi wax bëgg dem de sàng yow yaa ma gën a jiga rajo bi damay déglu koor gi ba mu jeex muy déglu basiir rek kenn nasiirul ñaari baat yu tegaloo basiiran wa nasiiran da ngeen kenn koy nasiir fi mu ne basiir rek àjjana nii àjjana nii doo dégg ko wax sawara doo dégg ko wax ko wax doo dégg ko wax génn ruu doo dégg ko wax xatuk bàmmeel doo dégg ko wax yàggaayu tëraay ba doo dégg ko wax jot leetar doo dégg ko wax jégg siraat rek àjjana ana nasiir basiran wa nasiran fa tabarakallah benen bi yonent bi ne na ngeen bolé xawfo ak raja léegi ñepp am raja te kenn du def kon perte ma ngi bëgg ñew bi ci gëna bon nak dafa am benn nit yalla bo xon njabootam ne len ni ngeen jaamu yalla ba ba tapax te pax doora tabax jaamu yalla bu tapax wara su duggé ci bammel te bammel dula manal dara nga doora tabax gaay yépp nga tabax te kenn tawul pax wóorul ñu sant yàlla sant Alaaji Daawuda Kamara maa ngi ànd ak kilifa yu baax yu jóge Thiénaba ak Thiès yoo xam ne ay kilifa diine lañ waaye damay wax ne damay wax ne charia charia mooy sir bi ñëpp war a woddoo tariixa ñambaas la ñambaas mënut a yàq sir balaa càag nga tepp ko teg fee woddoo sab sir xam nga fu ñu àgg léegi lem sër toog fee waddoo ñàmbar te ñàmbar jotul nag moo tax ñëpp a sàgganu baa ñu bari boog sàgganu nañu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tabaarakallah aatil xawsa baariha yal na yàlla fayal ñu leen fa tabaarakallahu dañuy jox premier adjoint au maire ki xam ne mooy Serigne Aliou Ning su ko defee incha allah kàddu yaa ngoog bismillah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 bi nga xamantene ni lu mel ni def eh, nañ ko sanjar moo tax dañuy gërëm bu baax imam jànkal ñoo lay gërëm ñu def tànnee sànjara pour def fii sa colonie de vacances di ñaan yàlla lii nekk loo xamantene ni une première la mais dañ koy defaat defaat ko defaat ko lii su amee nag il faut ñu sargal imam Camara ndax moom moo ko waral eh, ko gal yem ci dañ koy gërëm li tax nu koy gërëm mooy euh, kilifa yi fi teew tey su fekkoon dañ leen bëgg a indi fii Sandiara ci neneen lu dul bi ñu seet ak Kamara kon dina jafe kon ñooñu suñ fi ñëwee Sandiara teew fii ñaan fi liñ fi ñaan wax fi liñ fi wax kon kooku dañ ko war a gërëmee imaam Kamara euh, li ñu leneen li ñu bëgg a wax mooy li fi xale yu jàng gis nañ ko loolu mu mënul mooy seen njàng mokk na mais li ci am solo mooy mat na li tax mu mat mooy dañ def ay citoyen parce que lépp la wax moo tax li imam sànq wax léegi dama koy dëggal démb bi nga xamante ne nii dañuy def sensibilisation ci marché bii ci Ebola médecin bi daf ma ne ñun dañuy sonal suñu bopp xam nga lan la nañu demul ci yàlla soo ko defee li yëpp du fi am day yomb trop kon imam Sànke li nga wax loolu lay dëggal kon euh, ñoo leen di gërëm di leen sant wax ji du gudd di wax aussi que le maire lii la gëm mooy éducation moom la gëm l'islam aussi moom la gëm looloo tax ba mu ne day gën un conseil spécial muy doomu imam Camara bii di Abdoulaye Camara di suñu wëlëre di suñu lépp pour mu def ko conseil spécial am nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu l'islam moo ko conseil kon loolu euh, monsieur le maire moom la gëm ma ñëw fii tey nag ak euh, deuxième adjoint bi di Omar Sarr euh, di leen gërëm di leen sant wasalaam الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب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 فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة